alayhi wa sallam jooɗi ɗo nena ñugi jiital ci nuyoɓi so yenante bi sallallahu alayhi wa sallam mi toow fi siñuwel sherif mahmoud o wiyete sherif mahmoud ɗo tuddu fi sherifa abba doomo sherifa abba to caalkon fene sa caalkon allah newnanima noon hikka taweede ziyaro yallah yombanna ko ren mo fektewe ziyar ɓe seen ngas ñi juuraade mo e salmin dem suñ ko fayee ziyaare ak nuyu enen juuroo ceerno men ceerno Tijaani Baro ñu ziyaare suñu sëriñ ceerno Tijaani Baro ko jaati ceerno Mouhamadul Mansour Baro jëmmi suñu sëriñ Mouhamadul Mansour Baro loolu si wàllu deret la koñum dokkal kadi moomin boromi mayla allah ko dokko yalla dey maye mo pat a ndaarimo tan boo ko saɗa annduno jinnaɗo makko bo hamul waajuram ji woni ceerno mouhamadoul mansour baro mo ceerno mouhamadoul mansour baro tan haqqille ma yahade ceerno sahel ndey dem suñu sëriñ cheikh mouhamadoul mansour baro ɗimɓe ceerno fof mbiɗa anndi ɗumen doomi ceerno yépp xam naa leen goro jom dokkeen ay goro mi may lañu kon kono kadi ko jom dokkal momit borom may la o wi heewi ko wayni barina ɗum men ni dente baaɗe ni ay mboolooji men ni ko jaati ceerno cheikh baro bappam ceerno cheikh baro walla ceerno alaaji malik baro walla seydir haaji malik baro ɓenelamo e dental baangal ni yonni ko si e mboolowo men ni eɓe nganndi so yehi toon kamdañu ko demee fof woni jaagol maɓɓe mooy seen ndem fof a weeta sinno ɓe ngariino doo nagbu seriñiñowon kooku nag konko on noon oɗo ziyara mo jiiɗa fi ziyara bi nga gis o waɗi ko doge tati ñetti pacce la en rogere wootere benn pacce bi moo ko ñalawma aseɗo moo bisu samedi bi sendirdi haa en gasni bi ñu ba pare وعدين جولة جاية نجيت نجول لجاية وياو تنين مدعال نجو وقتانا نمكو كلا دي من نوف زيارو فدي نول دي في دي من نوف نك زيارة بكماسة ندو إتارة بكم دوب جاية أتبي موكو يتف جروب يتشار يمرو رجنا بمكو بي yegrore dinnaɓe makko ɓe janngo noon dimas o suba dimasi sentini tan sumi yewuwe ha en gasidima ɓañum deggue ba pare en janggi kamilaji ɗi mi jangga hatma alqouranay ba pare on saha enen fo jooɗɗen ɗo gowunak ñun ñepp ñu toog fi yimoo bee gonay yimde ñiy woy ci yonente bi di woy à deux heures à deux heures ceerneen ngara ɗo golle ɗe ɗo golle ɗe ha gueƴ ha gueƴ bagee ñande a ñalawma altino o noon ñande beso altine di nag ko ɗen jaade gari ceerno boobu la ñuy dem suñu kër Cheikh Mouhamadul Mansour Baro ñu dem ziyaare foofu foofu la ñuy jullee takkusaan man ma am ci julli fa timis ñu daal di ñuy ñaanal ñu suñu reeree ñu doog ñibbi ñetti fan yii xale ngeen ñalawm bés bu bés bu ne mu ne achète oolo bésu samedi bi te oolo waxtu te si bés si heure bii Thierno man la Thierno Tidiane moo yowtal seen bañ a diini suñu sëriñ Thierno Ahmad Tidiane mu ñuy waxtaanal si diine ay mbaax yu bëri dinañ si wàcc yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wax na si hadis majtama qawmun fi baytin min buyuti llahi yatluna kitab allahi ويتطارصونه بينهم إلا ما زلت عليهم السكينة وهذه السكينة لا يعلمها إلا الله ينال الله صلى الله عليه وسلم mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ustayi bi denndi mu ne su mbooloo daal di mbooloo dana jaltoo inde allah ñuy daal di waxturu yàlla mbirum allah ma jippo e fat mu ne yërmande yàlla day wàcc si ñoom googu nag ay goto allah ɗum suwana kenn xamu ko ku dul yàlla nag ñu jox suñu sëriñ ñu daal di teewal kala jogiiɗo haaju képp ko am aajo haaju ko ɗiɗi mu ne aajo ñaar la ene woodi haaju am na aajo boo xam ne aɗa waawi haalande ɗum musidɗo ma manga kaa wax sa xarit ene woodi haaju am na aajo boo xam ne koye nder ma to wona si sa biir xol rek lay nekk hay goto waawa haalde manoo أردنا من وحدنك وهذا وني إدرما أردنا من توحت مجي سبير وقتون يسوع من لب نقطة ورسكان مسرين أو أو وقت si waxtu bii qad wa fi hadhihi al-lahza i'ama lahza ono lahza kan mun si dal lahza bi allahumma salli ala allahumma salli ala rasulillah النبي صلى الله عليه وسلم muzani radiyallahu taala anhu ñu ngi daal di ñu daal di tagg Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu ma ji yàlla waɗan ene barke makko ci neema yi yàlla defal si barkeem en jetta almuɓe makko e halifa e halifaɓe makko ñu ngi daal di sant ay taalibeem ak i xalifaam ak suñuy sëriñ ñi nga xam ne ñoo féete si ñun. calmina i jamnelaaɗo jullit dey yokku ɓeydoto Allah mo ɓeydoto hoore makko day yokku ca Yàlla di yokku ci boppam enen yokku nañu Allah addani en ijam nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa doomu ku la si ñoom. moo ne Cherif Mahmoud. ku tudd Cherif Mahmoud. kii Maodo may ki nga xam doomu suñu mag la. Thierno may def. suñu sëriñ. Jinnaado may def. suñu waajur. Khalifa may def. suñu Khalifa. Cherif Cherif Abba. ku tudd Cherif Abba. Thierno Cherif Cherif rek an gonto jeeya fende so caar gonla dëkk ko moƴƴo ko baax la ko mawɗo ko mag la ko moƴƴo e nder fuuta ko ma ko baax la si biir fuuta kanko tan gooto moom kenn rek ceerno mahmoudou sérif mahmoud so tawi ko kanko tan arno gude moom rek moo ñëwoon e nokkuji ɗi fof moo ñëwoon ci béréb yépp ɗum tan ena yona loolu rek dina doy eɗen jabnoma noon ñun eh, ñu ngi koy baalu àq nag. ndax di yëkkati suñu sawutu si kanamam. suñu kàddu si kanamam. ndaxte moo ñu fi nekkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. looloo tax. yàlla waxoon na sahaaba yi ridwanullahi alayhim jën gi nag mu leen di jàngal jën gi nag mu leen di tegtal mu leen di tegtal nan la ñuy nekkee ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci seen jataay ci seeni kàddu mu ne leen la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi bu leen yëkkati seen kaddu fu mu gën a kawe kaddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu yar nag wala di makkutan haaji du ci yonent bi rek la yem wala ay sahaaba yi rek la yem du ci sahaaba yi rek la yem kette bi ñu ngot foofu im si si xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëpp la tara to jamba ko joosi fépp fu deretam toog ñaawoto loolu day daal di attew si jullit yooyu teew si kanamam looloo tax ñu koy baalu mu ne kaddu bi kaddoom la toogaay bi toogaayam la li ñu nekk fii si kanam mbir mi mbiram la monsieur Abdallahi bii toon si lii ci ndigalu sëriñ ñi la ndigalu sëriñ ñi la suñu sëriñ bi ñu fi nekkal tey suñu mag suñu xalifa si àddina bi si daal si xeet bi si jullit ñi si njaboot gi. Ceerno Ceerno Cheikh Tidiane mu Ceerno Ahmad Baro radiyallahu taala. Ceerno suñuy sëriñ Ceerno Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu. bu Ceerno Ahmad Baro radiyallahu taala anhu. moom ak ay rakkam ak njabootam ci seen kaddu seen ndigal mu debu ngoon di jotee. gan yi ñëw nañu mu ne njaboot gi na ñëw wuutu ko fii mu daal di koy ganu lislaam yi hmm, ganu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ganu yoo xam ne ganu sunna la ganu yoo xam ne ganu meen la ganu yoo xam ne dañoo dëkk ak ñoom même bu dee jaat yi nekk jëmm yi nekkuñu benn dëkkoo dëkko doowuñu waaye nag yi ñoo nekk ñu daal di ñëw di gàttandu dalal leen looloo tax bii bésu dalal la bésu mbégte la mu ne ziyaar bi nag suba la bu soobee yàlla. ngi sant yàlla. ñu ngi junni si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. daa yokku nañu. ñaanoon nañu yàlla. daaw. ñaanoon nañu yàlla. yàlla nañu yàlla may defaat diine gi ñu déwén. yàlla may nañu loolu ñun ñëpp ñu ngi teewe ñi teewul si ñun tuuti